koo gis ay symptômes ay signes yu nga yoo comprendre da ngay toog fi nga nekk ko wootee ñu la mu ne ma quatre heures trente moo jot nañu muñ ba six du matin ma rappelé six heures du matin nag la commencé woote mu jot ay nit expliqué leen symptômes yi ñooñu ne la ok docteur yi expliqué ñu bu ñu ñëwee defal nañ leen fiche bu ñu ñëwee dinañ la rappelé ba sept heures trente mu rappelé waat ñu wax ko même chose ma ne ko xamalaa la man laa je ne peux plus maintenir quoi franchement fu mu nii dama bëgg dellu dama bëgg a dem quoi xam nga mu noo toogal rek. ba huit heures trente ñëw ci laa jël sama téléphone woo sama benn xarit médecin kooku ne ma dans dans dans deux minutes maa ngi lay rappelé effectivement deux minutes après mu rappelé ma mu ne ma toogal waa waa district sanitaire de Mbao ñu ngi noonu di ñëw woo naa la numéro euh, docteur bi nga nga coordonné ak moom ñu ngi noonu di ñëw léegi nag jël si ma ñëw yóbbu ma mettre ma en isolement foofu euh, prélevé ma. bon malgré tout yóbbu Mbaaw wala Diamniadio non non Mbaaw lañ ma njëkk yóbbu Mbaaw lañ ma njëkk yóbbu euh, district sanitaire Mbaaw ay nit yu disponible fa nekkoon yóbbu ma foofu euh, mettre ma en isolement le temps ñu samay sama sama sa ñu prélever ma parce xam ndax ay ndax euh, coronavirus la tant que amuñu résultat wu institut Pasteur donc ñu mettre ma en isolement malgré tout sama fièvre bi après sama fièvre commencé waat ci parce que jox nañ ma sirop ak doliprane donc euh, du coup parce que ñoom mënuñu woon def beneen traitement lu dul xool sama symptôme yi commencé ma le traitement il est symptomatique donc euh, euh, malgré tout keroog jot naa bind sama benn article parce que bu ma doon dem laaj naa docteur bi est-ce que mën naa indaale sama ordinateur mu ne ma mën nga indaale sa ordinateur parce que sama souci mooy il fallait que ma am benn parce que amoon naa information moo doon bind il faut ma bind malgré tout ma bind ba si ëllëg si le matin lañ ma confirmer ni effectivement euh, jàngoro coronavirus bi moom ma dala mm-hmm. bu ñu la ko waxee euh, ne am nga coronavirus lan lay def ci sa xel. bon euh, franchement Babacar tey nag mun nañ ko wax mais il faut dire que c'était le plus dur moment de ma vie parce que mënu moonu comprendre fan laa ko doon chopé parce que man fopp fu ma doon dem yoroon naa sama gel. tout ma doon moytu mais bon après jëm naa remonter un tout petit peu fu ma ko war a jël ma xalaat ni foofu la te jàpp naa ne ba jusqu'à l'heure où foofu laa ko war a a jël moom. fan la foofu ma ko bon Paris war a nekk c'est à l'aéroport de Paris parce que ñi ma nekkaloon yëpp euh, Angleterre dëkk bu ma demoon ñëw Paris kër bu ma daloon ñu fa nekkoon ñëpp ba heure bu may wax ñeek yow amuñu benn jàngoor te pourtant def naa ay contact ak ñoom dama naan toog lekk ak ñoom benn ndab di naanandoo benn ataaya et donc euh, man maa yoon tout temps sama masque et tout mais bu ma ñëwee ba aéroport Paris euh, benn instant euh, comme damay bind foofu ma nekk man damay bind samay article benn instant bi ma toogee di bind sama article nag mu am benn benn laxisme laa ko war a tuddee ma dindi sama masque toog di bind donc deux heures de temps yi ma defoon noonu aéroport Paris puisque ñëpp xamoon nañuy dans quarante huit heures France day tëj ay frontière am mu bëroon ay va et vient c' était le branle-bas le sauf qui donc du coup mu am jaxasoo waaw donc foofu nag laa manqué woon attention euh, ba ma ñibbisi bon te du tamit yàlla dimbali na ma parce que man dama ñëw quarante huit heures après si ñi ko jot a feeñ man man ko bu ku ma xam xam ni dama bëri fu may dugg dama bëri ñu may waxtaanal damay bëri ay rendez damay bëri ay contacts yi may def donc euh, yàlla dimbali na ma bu ma ñuy quarante huit heures après la ma la ma yëf yi daal donc euh, pour revenir sur la question Babacar effectivement bi ma ko bi ma sentiree nii bi ñu ma waxee ni eh, coronavirus la franchement le monde était à l'envers euh, pour vous dire vrai man dama craqué woon parce que euh, je me suis dit euh, euh, tey jii nii. da nga da nga da nga jooy say rongoñ tuuru sama jooy waaw sama rongoñ tuuru parce que je me suis dit quelque part que ay tout tànk laa am xamuñu ma genre feebar bi bu ma bu ma dalee. nan la ñuy def du ñu xam seen papa et tout donc y' a beaucoup de choses tamit euh, sama sama sama sama bërëb journal bi projet bu bees la ñu dénk ko euh, ñu nekk fa ak ay ak xale xam nga ñoo xamante ni ils sont ils sont pleins d' avenir xam nga man maa topp si ku jiitu journal bi mooy Ibrahima Mbengue Iber Mbengue donc du coup euh, wax ni maa nekkoon maay maay cheville ouvrier journal parce que Baba Bayo rédacteur en chef nga xam nga rédacteur en liggéey bu muy def si journal donc du coup. j'ai pensé à tous ces collègues-là tous ces jeunes yi nga xamante ni ñoo fi nekk chaque jour on on partage toute notre journée on passe plus de temps à la à, ensemble que, que la maison donc du coup ñoom yëpp laa xalaatoon sama sama àddina doon tukki franchement mais heureusement euh, docteur Ndour euh, madame Ndour bi nekk euh, euh docteur euh, médecin chef district sanitaire bu Mbaaw bi mën naa wax ni psychologue la parce que moom a njëkk dalal mu ne ma euh, monsieur ba mu waxee ak man parce que ba léegi ba heure bu may wax ak ñaar ba Babacar gisuma ko looloo mu gën a métti si jàngoro gi parce que boo amee jàngoro ji xam nga euh, day am benn distance buy am sa diggante ak ñeneen ñi. Mhm. xam nga donc man bi may ñëw ba ñibbi ba heure bu may wax ak yow nii chaque jour bu ma affaire bi dalee ba léegi damay jokkoo ak moom mais musuma teg bët musuma ko teg bët musuma teg bët mais heureusement ak dalam mu jël téléphone am ma. Euh, conseil ma ne ma monsieur Cissé lii c'est juste une grippe sévère da ngay dem quelques jours après ñu faj ko xam ma mu jeex ma ne ma résultat yi ma am sa sa sa sa bi c'est pas aussi sévère que ça mais moom mën na ma wax loolu parce que moom médecin la mais man ñu ko doon yëg xam ni j'avais tous les symptômes du coronavirus tous les symptômes du coronavirus lu ma dundoon y a vingt quatre heures euh, sama kër hmm. euh, la mercredi dix huit de dans di nuit du mercredi dix huit au au jeudi dix neuf euh, li ma daloon man rek maa xam li ma doon sentir man rek maa xam. léegi bi nga district Mbao bi mbir yi positif dañ la yóbbu ca Diamniadio. traitement bi foofu lan ne ne lan la woon traitement bi foofu ca Diamniadio. voilà Babacar c'est le lieu pour moi de remercier tout le personnel sanitaire. qui tourne autour du euh, du coronavirus parce que franchement ay jàmbaar lañu ay nit yu dal lañu ay nit yi nga xamante ne tamit dañuy sacrifié wu sax parce que liggéey liggéey bi euh, da ngay xool ni euh, gars yi ils sont tout le temps habillés en combinaison ñoom ñoom dañuy dem ba fi familiarisé ak yow dañuy ñëw jaar sa tur mais yow doo leen a gis doo leen a xam parce que ñoom ils sont tout temps encagoulés effectivement. boo gis seen seen kanam ndax li ñuy waa ndax li ñuy sol. donc du coup loolu tamit boo boo boo amul doole da ngay craqué wu parce que man tamit vendredi boobu bu ma egsee foofu benn instant bi ñooñu ñëwee et ak seen i matériel ak seen truc après ñu dem bàyyi ma si sama cellule sama chambre no ja mënu moon téye sama rangoon yàlla def ni euh, euh, directeur général Futurs Médias woo ma di xool fu ma toll may may tour rongoñ mu dalal ma euh, jëm ma defal bu baax bu mu raccroché mel ni dañu ko waxante dafa raccroché une minute après euh, directeur publication record tamit woo ma fekk ma ci état boobu tu vois pour vous dire combien affaire bi dalay dal ak noo mënta dëgër dëgër dëgër il faut nga nga craquer bu kooku pare euh, secrétaire général Synpics euh, Bamba Kassé sama xarit moom tamit mu woo ma donc di coup de de filage bi Bamba pare président ANPS donc ce qui veut dire que solidarité bi nekkoon autour de man man dam ko sentiroon maintenant Babacar euh, euh, euh, traitement bi c'est très simple parce que comme ñëpp xam nañu nii amagul vaccin wu anti coronavirus li ñuy def mooy traitement symptomatique dañuy xool yow li ngay souffrir déjà man dama doon sëxët dama doon soj amoon fièvre donc li ñuy njëkk a def mooy jox la benn drill mooy sirop bi bi atténuer sëxët bi Euh, jox la euh, euh, kii nu mu tudd encore vitamine C. Mhm. pour booster la pour mu lay ñu lay booster ak dans un premier temps tablette dañ koy jox paracétamol. Mhm. nga doon jël deux matins. yéen joxuñ leen chloroquine. chloroquine bi si après la chloroquine bi ñëwee parce que chloroquine bi il fallait bi bi docteur Raoul bu. hôpital laa timoon Marseille euh, expérimenté ko donc il a fali que euh, docteurs yu sénégalais yi tamit adapté ko décision bi ñëw ñoom ñu def commande parce que man bu ma bu ma comme dama doon suivre euh, information bi ma ñëwee ba foofu femme bu mu ñëwee loolu laa ko njëkk laaj mu ne ma nañu ay commande mais tamit amélioration une nette amélioration parce que affaire bi duñ ko def duñ la joxe overdose da ngay jël matin benn comprimé midi benn comprimé le soir benn comprimé donc benn tablette lañ lay jox nga nga jëm ko gérer ak euh, sa sirop bi parce que sa xët bi moo lay sonal sax poumon bi la feebar bi poumon bi lay jàpp moo tax ñu naan euh, ñi nga xamante ni dañuy dañuy tux nañu moytu bu baax xam nga parce que bi lay jàpp même nit ñi dul tux sax booy sëqat da ngay sentir ne lii en réalité Babacar virus bi poison la quoi en fait yow boo bu la dalee. yow boo feebaree da ngay xam ne yow dafa dafa am di nekk sa yaram boo demee ba tane tu n'as même pas besoin que ñu wax la ni tane nga yow sa bopp da ngay xam ni man nii ni dara ma parce que effectivement day fekk euh, euh, chloroquine bi ñu lay jox li li dimbali na la euh, kii bi nu mu tudd encore ñu lay jox. sirop bi ak vitamine C. vitamine C bi ak dañ lay booster donc dañ lay dimbali dañuy dimbali sa yaram parce que en réalité sa yaram mooy xeex. ak ak virus moo tax euh, dañu naan souvent euh, tamit euh, feebar la boo xamante ne day sonal mag mag yi mag yi lay gën a sonal quoi. waaw mm-hmm. mm-hmm. mais tamit quoi qu'on puisse dire Babacar feebar bu doy waar la. léegi yow xam nañ ni bi ngay jàng journalisme Marseille nga dem bokk na ci dëkk yi nga xam ne jàngee nga ko fa te ki la dalaloon foofa di la toppatoo mooy Pape Diouf. mi nga xam ne mm. coronavirus gi moo ko yóbbu fii ci Ndakaaru ba nga tëddee l'hôpital dégg loola moom noo def. ah Babacar man ba léegi maa xamante ne ku sore la ci man euh, le 19 comme laa dugg hôpital papier information bi le 19 ci guddi chaque jour. que jëfee moom mooy njëkk message six heures sept heures du matin moom mooy mujjee envoyé message donc euh, du coup ba si jeudi bi euh, mu envoyé ma message ne ma euh, depuis une semaine une angine atroce me complique la vie mais encore plus cette nuit malgré tout j'ai j'ai j'ai eu la force de penser à toi ma durée message yi ne ko Bonjour Président. Euh, oui, je continue à me battre contre ce machin. Euh, mais je pense que l'angine va bientôt disparaître. Quoi. Je suis convaincu que l'angine va bientôt disparaître. Après, moi, je me battre. N'oublie pas ce que j'ai l'habitude de te dire. Je te fais confiance. Sois fort. Reste, euh, euh, euh, comme un roc. Tu t'en sortiras. ma ne ko merci président moom moo nekkoon jour boobu la mujjee connecté WhatsApp parce que ci euh, lendemain bi nag mu woo ma ay dix heures parce que moom souvent bàkk la may woowee quoi mu ne ma bàkk euh, maa ngi ñëw hôpital euh, je pense que j'ai chopé la même maladie que toi bon man ma doon désolé wu quoi xam nga mu ma non ne t'en fais pas si mu ne ma ne t'en fais pas toute la population politique de Marseille est atteinte de coronavirus mu ne ko ah bon mu ne ma waaye mu ne ma la plus grosse erreur que la France a commise c'est d'avoir organisé ces élections municipales. Donc nous avons, nous sommes tous sortis pour aller voter et nous avons tous chopé coronavirus. xam nga mënuma mel ne t'inquiète pas ça va passer. kon moom euh, France la ko la ko dalee ndax dem na Côte d'Ivoire dem Maroc. ci diggante bi effectivement effectivement France la ko dalee. France la ko dalee mais baax na feebar bi bu la dalee yow da ngay boo remonté rek da ngay xam fan la boo ko jëlee boo remonté rek sa kii da ngay xam fi ko jëlee quoi normalement. donc du coup bu loolu amee mu ne ma euh, daam mu expliqué ma les péripéties yi ni mu jógee këram ba ñu egg si hôpital boobu jarul ma wax ko mais vraiment daam bi ma consulté nee na ma les symptômes signes yi signes coronavirus la mu ne ma mais nee na si c'est confirmé demain samedi on m'amène jam ñaajo ma ne leen effectivement donc ah loolu de dina ma neex parce que bu doon jam ñaajo sama doom yi foofu il est interné aussi lui aussi dans maladie donc on va on pourra bien parler football mu ne ma euh, bu ma ñëwee ma xam naa ne nañ bokk chambre ak yow comme a waxtaan parce de projets et tout euh, ma ne ko y' a pas de problème président parce que man président laa ko doon nooyee. bu bu loolu weesoo samedi matin mu woo ma ay dix heures douze mu ne ma ba finalement je ne pourrais pas venir à Diamniadio ma mon état est instable voilà c' est terme qu'il a utilisé mu ne ma mon état est instable après mu wax ma li ko war a li ñu ko war a tegal ma ne ko ah bon mu ne mu ne ma ne t'en fais pas. ma ne ko bon courage président ma ne ma non de dire de rester encore plus fort Mbacké donc loolu moo nekkoon dernier sama dernier wax ak euh, président. moom après situation dafa compliqué mu amoon ay problème respiratoire ban sax defal ko euh, respirateur mm. artificiel ak yooyu ba noonu la mujjee. waaw effectivement man bi ma bi ma bi ma bi si LFI ma yëgee loolu xamoon naa ni man sama fort intérieur moom la woon parce que bu mu doon wax ak man samedi bi. sax ak fort euh, xamoon naa ni moom la euh, te bu mu génnee àdduna tamit man waa ambassade France ñoo ma njëkk a woo wax ma ni Pape Diouf na àdduna mais na garder information bi pour toi pour l'instant sama boo informé kenn du coup affaire bi xaw ma jaaxal parce que dama toogoon dama taxawoon bu war a julli ñu woo ma wax ma ko ma toog ci laa toog xaar lu jot ma julli donc le temps que euh, may rappelé ki ma woon di ma ko wax ci laa gis réseaux sociaux yi ñun. Mhm. président Pape Diouf demoon léegi ci tënk dix secondes Bakary yi parce que waxtu wi dem nañu bu fekkente ni ku mel ni yow am na coronavirus ba wér ba génn loolu la docteur yi wax ni moom nga war a def. Euh, non li ñu lay wax mooy euh, parce que kenn kenn amagul kenn amagul vaccin kenn xamagul coronavirus coronavirus bi boo gënee ba xam di nga ko di laal di nga ko soppee wala doo ko soppee li lay njëkk wax mooy il faut que sa yaram bi mën a continuer xeex ak ak virus bi du coup tu es aussi exposé que les autres même su fekkente ni yow avantage bi ngay am mooy da am des ay anticorps il lay mën a permettre nga xeex ak virus bi mais dañ lay wax boo demee na nga moytu donc euh, euh, geste barrière yi nit ñi def au même moment au même titre que les autres mm-hmm. yow avantage bi ngay am mooy yow déjà sa sa yaram nam ba mën na kii bi feebar bi sa yaram am na mën na xeex ak virus bi contrairement aux autres ñi nga xamante ni amuñu ko. Mhm. léegi bi nga ñibbisee ci kër euh, gi euh, noo def ak madame ak euh, xale yi. bon madame ak xale yi yàlla def ñu ni depuis bi ma affaire bi dalee deux jours après dañu leen ñëw teste parce que damay insister pour ñoo testé parce que ñu ngi fii ak suñu ménagère ay doomu jàmbur la ñu mën na leen il faut ñu ñoo testé leen ñu ñoo testé leen. Euh, ñëpp ñoom ñëpp nekk négatif mais bu ma ñibbisee aussi parce que symptômes yi dafay euh, doyul rek damay damay damay naan non balaa may ñëw tamit man di yebal gars yi ne leen il ñu dem tester leen ñu dem tester leen tamit parce que euh, le temps man may dem di ñëw xam nga def na kon sama yi ak ñoom ak léegi def na léegi seize jours ñëw testé leen dëmb seen test yi génne ñoom ñëpp négatif donc euh, du coup euh, loolu la mais ñoom man bi ma demee tamit ils étaient confinés dañ leen wax euh, nañu confiné wu jabar ju responsable laa am ko xamante ni vraiment xam nga dëggal na gars yi kër gi kenn daan loon dugg si kenn daan loon génn donc du coup lépp lu ñu soxloon xam nga lu ñu war a tout oto baay ko doon indi ñu teg ko si bunt bi moom mu jëli Mhm. donc noonu la noonu la noonu la noonu lañ noonu lañ fagaroo ba confinement bi ba seen confinement bi jeex et euh, donc ñoom def nañu deux tests man bu may dugg ak ba may génn. jeex na donc euh, waaw. am na solo mais bon courage Bakary ñu